bijaayi sal yomi wa jaaxi man munit yaay waru maa mislo walam najid muhammadin afdali xalqi laayi bila taraddudin wala istibaain bi nag fii ku fi ñëw te xoolee nii nii ñu ko dëkkee nii doo xam tolluwaayu dëkk bi nan la toll waaye man tey Alaaji Sàll maay chef du village bi maa ngi ëmb maa ngi am juróom-ñaari délégué quartier ak sama quartier man muy juróom-ñetti quartier nekk na ci village su Touba Boborel bii te quartier bu ci ne boo fa demee village su boppam la ndax boo ñëwee fii quartier Serigne Fallou moom ngeen nekk nii nga dugg nii fekk fa quartier sëñ euh, sëñ nga dem ne fekk fa quartier mu waayibu nga jàll ne li fekk fa quartier Matlaboul Fawzayni nga jàll ne fekk fa quartier sëñ Saliou nga jàll ne fekk fa quartier quartier maam Diarra ak sama quartier bi ak quartier maam Awa Boussou mu nekk juróom-ñetti ci yoo xam ne benn bu ne ab dëkk la. koo wax naa ko sëñ Abibou ma ne ko man de sant naa yàlla bi sama demande bi doxut ndax bu doxoon post bu mel nii duma ko am waaw dafa koy mu ne ma ah, waaye lu ma ne ko an ah, kay man kay na sëñ bi moo ma defal li gën ndax poste boobee buñ ma ko fi defaloon ni dina am poste waaye du ma am lii lii nag moo a gënal fukki yoon ak juróom. ndax poste bu toll nii ku ne xam na ne ñi koy liggéey yombut walbati ko nag di Touba ca kanam lépp bokk ci xéewali sëñ bi kon may sant bu baax de yéen kilifa yi nga xam ne yéen a jógee ca kaw ànd ak suñu xarit bii di Mamadou Dieng mu di mu di ñu jàppale ma di leen seede ni moom sant naa ko. ma ànd ak docteur Abdoulaye Bousso di directeur des centres des opérations d'urgence sanitaire ak euh, professeur euh, Mame Diarra Beye mu nga xam ne mooy SAMU affaire urgence. donc dañu fa ñëwoon dañ fa ñëwoon tey ak euh, donc médecin chef de la moom Mamadou Dieng pour visiter li nga xam ne moom la Touba sa kanam def man sama wax du gudd d'abord damay euh, remercier di féliciter le médecin chef de région initiative bu mu am pour ñëw proposer site bi Touba sa kanam pour mu def poste santé parce que day contribuer li ñuy wax activité géographique euh, des structures santé à la population waaye aussi dinaa gërëm. gërëm boo xam ne am am na fu muy commencé wala amul fu muy jeexee Touba sa kanam olof den du olof nag may olof nee na dëkk sa dëkk ba bokk sa dëkk bu moo gën li ngeen def ni acte citoyen fort la parce que da ngeen initiative ngeen ñeneen dañuy cotiser bu ñu am def ko si askan bi te wér-gu-yaram ak njàng da di domaine yoo xam ne domaine prioritaire la képp kuy bugg développement rek si ñaar domaine yooyu ngay investir te yaakaar naa li ngeen def ni mooy da ngeen ko comprendre ba def ko vraiment man de bëgte bu rëy laa am ki nga xam ne ñëw naa fii pour visiter poste santé bi nga xam ne Touba Ca Kanam moo ko euh, euh, tabax di tabax nañ ko fi te Sénégal mu ngi vivre benn épreuve bu xaw a metti maanaam épidémie euh, de Covid 19 tey Touba docteur Dieng wax na ko am na ay malades yoo xam ne ñu ngi leen di faj seen biir kër loolu fu mu la ma dëkk suñu stratégie mais te bu ñu amee lii. ñoo xam ne yàlla lii mbiru yàlla la mbiru yàlla la vraiment di leen sant di leen gërëm vraiment loolu laa amoon di wax ci tur ministère de la santé te itam bu ñu demee nañu jottali liñ fi gis si si euh, kilifa bi moom xam na ko naam parce que daaw dama rappel màggal Touba bi bu ñu ñoo ñëw de visite euh, état dispositif bi visite woon benn poste santé man àndoon naa ak moom vraiment loolu di leen sant leen gërëm bu baax surtout ministre de la santé ak état état du Sénégal ak la population sénégalaise. parce que li ngeen def nii def leen ko pour Touba rek mais da nga ko defal pour toute la population du Sénégal. ci turu Touba ca kanam ci njiital Serigne Abibou moom Serigne Fallou ak Serigne Abdou Lahat moom Serigne Abibou ci sama tur ak turu mbooloo mi yëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen teewaay fii ci poste de santé Touba ca kanam Boberel ndax poste de santé gox bu ñu ko def dañ koy tuddee turu gox ba. yokk ci Touba ca kanam Touba ca kanam Lansar Touba ca kanam Boberel Touba ca kanam Kër Gol mm, ñoo ngi actuellement ci juróom-benn poste de santé yoo xam ne ñeent yi pare na te yëpp même modèle la modèle bi ñu ngi sant ministre bi ak ministère de la santé parce que plan yi bi ñu ko soxlaa ci ñoom lañ ko jëlee ji woon di sant docteur Dieng mi nga xam ne moom membre à part entière la ba pare nekk collaborateur ci Touba ca kanam ci li muy liggéey nekk tamit partenaire ndax Touba kanam bu dee ci wetuk Euh, sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa mooy kilifa ak Touba kanam mooy joxe ndigal ñuy def Touba ca kanam gépp genn kilifa am te mooy sëñ Muntaxa boo dee nag suñu digganteek euh, gouvernement bi ay partenaire la ñu doon partenaire public privé ndax euh, li ñuy def nii lépp ñoom ñoom la war kon xëy na li ñuy wax modèle de développement communautaire moom la Touba ca kanam doon ci genn wet mu am wet gum leen féete foofu kon ñu ngi leen sant bu baax di leen jaajëfal di waxaat di leeral ci biir rek ne ci biir ñëw gi nga xam ne ñëw ngeen ko fii gouverneur demoon na ci sëñ taxa wax ko ko sëñ Muntaxa yable ci sëñ Abibu yónni ab taaw maam sëñ maam Thierno mu dem ci sëñ Abibu dikk ko wax pour mu abal leen poste yi sëñ Abibu ci alam ak taalibam xamal ko ne ko moom du ko abal du ko abal sëñ Muntaxa ndax sëñ Muntaxa li muy àbb moo ko moom te mënee si ko abal lu moom kon nu mu ko neexee nu ko bëggee rek noonu lay demee ci biir loolu nag ci lañ déggante waat ak docteur mu am ñu fi njëkkoon a yabal ba tey jii ngeen dikkaat fi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu teewaay bi waaye di ñaan yàlla li ngeen fiy def si te mooy indi fi ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy Covid di ñaan yàlla euh, loolu gaaw a jeex ba nga xam ne sax objectif euh, li nga li nga xam moo tax ñu daje fi tey duñ ko atteindre ndax balay boobu dana fekk malade yu wér yëpp delluwaat à la normale poste bi ñu man koo jébbalaat nag li ko taxoon a jóg te mooy doon poste boo xam ne poste gox bi la. محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباع